junniy million la daara Koki soxla. benn fan ci weeru avril 2023 lay doon ci grand théâtre national bu ndakaaru wal qalami wa ma yasturuun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 asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu bokki jullit yi fi teew yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp di leen jottali ak cant ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci bi sant Sëriñ Tuubaa sant sunu maam Cheikh Issa Diène cant gi noo ngi ci jiital sunu bokk yi nga xam ni ñoo di waa kër sëñ Balla Faly Dieng ñu séddaleen bis bi ndax man bis bi tey laa ci jëkk a ñëw waaye bi ma waxee ñoom lañu ko séddee nag gën naa cee sawar sax fekk gi ma leen fekk teewe ko ndax sëñ Balla Faali wàllëre wàllëre Cheikh Issa Diène la woon lool lool lool lool bu mag maa ngi fàttaliku sëñ Dieng Balla Faali bi mu fiy nekk at mu ne dina xutil sëñ Baara ay yére waxtu màggal yónnee ko ko da koy fettale da koy fettalee wàllëre doxande doxan sëñ Balla ak Cheikh Issa sëñ Balla yit nekk di koo xam ni ko amub cër la ci sëriñ Touba ndax am na ko mos a dikk sëñ bi ni ko damaa bëgg a sëriñ bi ni ko kat man fi mu ne damaa xate amatuma jot gi waaye nag kon demal ca Balla Faali moom defar naa ko yaakaar naa yi ku defare ba ku sëriñ Touba defar ba ngay defare loolu doy na sëkk màggal gu mag it jàpp nañu ni mooy ki ko sëriñ Touba jëkk a waxanteel xamal ko ne ko nga jottali ko fere yi kon loolu doy na doy na dëpp ak ak ak ak ak mat wala réem ak Cheikh ci jumaa ji ci la gën a feeñe ndax jumaa ji Serigne Touba lu jiitu muy rëdd jumaa ji dafa wax dafa wax Cheikh Isaat ne ko jumaa ji de toogaru puloox bii ci kanamu kër gi foofu la jumaa ji war a nekk te suuf si moo mënu ko seetal pexe mooy def ba nu jot ci Cheikh ne ko baax na Mbàkke toppatoo ko ba gis may sa njaay moom pàkk bi waxtaan ceeg moom ba ñu juboo ci yi ci ñeent fukki dërëm ci xaalisu ngurdu ñu ànd dem ci kër commandant cercle bi booba tubaab yee fi nekk ñu wax la ñuy wax commandant cercle bi bind ko may sa njaay signé Cheikh Issa signé tubaab bi commandant cercle bi signé def tamponné mu ni jaay na ko suuf si ci ñeent fukki dërëm ci xaalisu ngurdu loola nag ëpp ëpp na sax li jumaa ji ëmb te booba rëddaguñ sax jumaa ji kon loo tax jumaa ji moom da doon jàggee Cheikh Issa bis ko Serigne Touba tàmbalee daa wax ni yàlla ak yonent bi ñoo ko diggal mu jiital saa Diène ci liggéey bi ba mu tegee xeer waat wax ko ne ko sab liggéey a ngoog sëñ ba Cheikh Issa moo di jël benn carnet daf sëñ Balla Fally Dieng ne ko ku dib bi lu muy joxe na la ko jox jox benn sëñ ma ndumbe ne ko ñi sant Mbàkke li ñu joxe nañ la ko jox kon loolu wël réew mag la carnet ba sëñ Balla yoroon nag sëñ Modou Xëyri Jaxate moom gis na ko ba jànq doom doomu sëñ am satul Jaxate man gisuma ko waaye nee na la ca ëpp ca ne ba ca ëpp lu ñu ca def mooy Cheikh Issa kon sëñ Balla wala réem ak Cheikh Issa lu dëgër la seen diggante ak Serigne Touba kon nag maa ngi sant itam ñi nga xay ñoo ko doon taxawal wax ji du mën a gudd di sant sama rakk ji Serigne Cheikh nga xay moo ko sos di ko wax taxaw bu mu agsi fii ànd koog sëñ Moussa ñoom ñoo ànd rek Ibrahima Bié ñoom ak taalibe yëpp. di ñaan itam yàlla defal na ci ñëpp ajuk aajo sàngiroonu bàttinam suñu xool seet na ci guy ci teew gi fi teew jar ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Serigne Sidi Naar Jenn muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu